alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 delsuwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar wi si waxtu wi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Drame ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bi di Basiru Cissé mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka moom muñu may ñaari xéewal ya toll ni kenn mënuñu ko jox ku moom buur bi tabaraka wa taala te mënuñoo nekk fi di lim xéewal yooyu nu ñu toll ba tax na mu ne ñu bu ngeen fi nekkee naan da ngeen di lim sama xéewal yamaleen di xéewalal du ngeen ko matal du ngeen ko dajal ba di ko xam ngir na mu bari kon xéewal ba yàlla xéewalal doomu aadama bi dafa bari ba doomu aadama bi mënuta lim xéewal yooyu ko yàlla xéewalal moo tax buur bi nañu wa in tauddu nicmatallahi laa suuxaa bu dee dangeen waajalal seen bopp pour di géem lim di xayma di natt xéewal yama xéewalal du ngeen ko musa dajal du ngeen ko musa matal tellement xéewal yi nu ñu bari waaye ñu jukkil leen ci xéewal yooyu ñaar ñaari xéewal yi nga xamante ne bii daka jagleel kuréelu jullit ñi beneen bi mu jagleel ko mboolem xeetu mbindaafoon yay dukkat ci kaw suuf si njëlbeenu xéewal ba yàlla xéewalal askanu jullit ñi mooy xéewalu nelaw bi nga xamante ne bu ñu demee xool ci biir téere alquraanul karim ci ay saar yu fasante ko waaye ci ay aaya alquraan yu fasante ko ñu ngi fay fekk buur yàlla tabaraka wa mu di ñu woon xéewal yooyu ci moom dong bàyyeekoo ndax moo ko moom daa bokk ci kaw tiifam yamu yore fa moom subhaanahu wa ba tax na xéewal bu njëkk ba mu xéewalal askanu jullit ñi mooy xéewalu ibaada xéewalu jaamu yàlla bu toll ni julli fajar bañ doon joxe waxtu su néew ci ginnaaw ñu joxe njëlbeenu waxtu yu julli farata wa nga xamante ne mooy lu njëkk la jullit bi wara a dajeek boromam ci dundam bés ba yàlla xéewalal mu nar a dund bés boobee njëlbeenu rencontation ba jullit bi war a boromam mooy waxtu ya jullit yi nekkee woon ci jàkk ji di joxe waxtu yu julli fajar wala waxtu yu julli suba gannaaw bu ñu déggee noddkat bi mu di leen woo ne leen hayya ala salaa kaay leen wuyu kaay ci julli bi nga xamante ne moo tax yàlla bind leen waaye nag ñu dégg noddkat bi ba léegi muy wax naan hayya alal falaax kaay leen ci texe bi nga xamante ne ci julli dong ngeen ko war a mën a amee du ngeen ko mën a amee ci leneen wala ci feneen wala amul kenn ku leen koy yenkeewal ku dul buur yàlla tabaaraka wa te mu lënkale xéewal jooju walla texe woowee ci la nga xamante ne mooy jaamu yàlla ba ñu naan salaa mooy julli kon képp ku yàlla yenkeewal képp ku yàlla may xéewal ja toll ni nga dégg noddkat bi di woote ba mu yegg fa muy waxee ci julli waxtuy fajar assalaatu xayrun min an nawm julli de moo gën nelaw ba ngeen nekkee julli moo gën moo ëpp solo moo ëpp dayo mooy fa seen jàmmi àddina nekk ka nelaw bi ngeen nekkee ndax toujours nañ bàyyi xel ne seytaane day géema noot jullit bi ci kaw lalam ci jamono bu mu déggee salaatu xayrun mina nawm bu la yàlla baaxewul nga doon kuy géema noot sa bakken ci bëgg-bëggam waxtu woowu de dina la fekk ci anam joo xamante ne doo mun a jóg dem wuyu doo mun a jóg dem remplilu la nga xamante ne mooy woote bañ lay woo ci julli moo tax nga dégg noddukat bi bilaal ya yàlla may wërsëg ju toll ni ñooy yëgal askanu jullit ñi ne waxtuy julli fajar de jot na moo tax ñu naan asalaatu xayrun min an nawm képp ku ko dégg war ngaa déggal woote woowu war ngaa mën a déggal woote woowu ci sa jëmm ji nga daal di waajalal sa bopp laaplu jàpp bésit séq ab jéego dem daldi di teewee julli jooju nga xamante ne malaaka ya yàlla yónni ci guddi ngir ñu ñëw rond doomu aadama yi di saytu seeni nekkin ci guddi malaaka yooyu ndegem waxtu yi fajar lañuy yéeg fa yàlla ak la ci yonent bi wax ci maanaa hadis nee na malaaka yooyu de bu ñuy yéggee fa yàlla yàlla da leen di laaj ana fa ngeen jóge fekk ni moom yàlla de mooy xam malaaka yi fu ñu nekkoon ak lañ fa nekkee ak fu ñu jógee ak lañ fa bàyyi waaye da leen di laaj fu ngeen jóge malaaka yi daal di seede ne ñu ngi jóge ko ci say jaami waaye jamono bu ñu leen di bàyyi ci kaw suuf si ah ñu ngi leen bàyyi ñu ngi doon julli waxtuy fajar bi nga xamante ne mooy waxtu bu njëkk ci bés boobee kon képp ku dikkee du julli fajar ci mbooloo nga xam ko nga bañ kaa xam malaaka yi dañ lay seede fa sa kanamu borom subhaanahu wa ñaari li xéewal bi muy xéewalu nelaw bi nga xamante ne buur yàlla subhaanahu wa taala mu ngi ñuy wax ci alquran ci palaas yu fasante ko mu ne ñu bokk na ci samay kaawteef yama yore man yàlla mooy nelaw bi ngeen di nelaw jamono buñ naan guddi waaye nag bokk na ci samay kawtéef ci ma di leen baaxee la nga xamante ne mooy virusu nelaw ci guddi moo tax mu ne wa min bokk na ci samay kawteef manaamukum nelaw bi ngeen di nelaw bi leyli ci guddi wan na xaar ak bokk na ci samay kawteef ma daldi leen béccil bëccëg bi nga xamante ne day leer naññ waaw ngir lan wabtighaakum min fadlihi ak kirkiri ya ngeen di géema a kirkiri béykat bi di dem ci tool ba bu dee jamonoy nawet lañu nekk kay liggéey ci biro ba muy dem ci bureau ba kay liggéey marché ba muy dem ci marché ba nappakat bi di dem ci géej gi sàmmkat di dem ci gétt ga ilaa yi kenn ku nekk di géem a kër ci la ñu yàlla tasal ci kaw suuf si ngir ñu war a mën a góorgóorlu faggu la nga xamante ne mooy la ñuy dundal yàlla nee na la ma leen tegtal nii te mu nekk sama kaawteef ba nekk fa man yàlla moo tax mu ne ñu inna fi daalika mu ngi ci lii ma leen tegtal nii laa yaatin kawteef bi nga xamante ne ñan ñoo ko war a mën a xool ana ñan ñoo ko mën a gis ana ñan ñoo ko mën a fàttaliku du mboolem ku mu neex nga xool kawteefu yàlla jooju de yàlla dafa am ñu mu jagleel kawteef woowee moo tax ñooñu la bëgg a wax ci njeexantalu aaya bi moo tax buur yàlla ñu ne yàlla ne ñu inna fi daalika lii ma leen tegtal nii mu ngi ci ayatin kawtéef bi nga xamante ni li qawmin ña ko war a mën a xelaat ña war a mën a gis ah ñooy xeet woo xamante ni yasmaun dañuy dégg aaya alquran waaye dañuy nangoo déglu aaya alquran buñ demee xool suratu ruum dinañu gis aaya boobu moo tax yàlla ne wa min ayatihi bokk na ci samay kawteef la ma yore man yàlla faman la nekk de waaw li nekkul ci kenn ku dul fa man yàlla manaamukum bil layl nelaw ba ngeen di nelaw ci guddi kon yàlla mooy roof virus nelaw mboolem mbindaafoon yi mu def ko mu doon xéewal képp ku ko gëm ak ki ko gëmul mboolem xëytu mbindaafoon ñoo bokk yem ci nelaw ba ñuy nelaw ci guddi wan naxaar bokk na ci kawtéef ya nga xamante ni mu nga fa yàlla mu doon bëccëg bi nga xamante ne dañu koy beccil mu ne fang suñu kaw nag waaw képp ku nekk si ñun gis éclairage bu toll ni ku dul yàlla kenn mënuñu ko defal ba tax na mu ne ñu wobti raakum ak kër këri góor góorlu raj loo ba ñuy gis ci jamono ba ñuy waaj a xëy di dem ci bérébu liggéeykaay yi ngir lan min fadlihi ñu dem sàkku la nga xamante ne mooy ngénneel ba ñu yàlla tasal ci kaw suuf si yàlla ne ña war a gis xéewal yi ñooy ña nga xamante ne inna fi daalika moo ngi ci lii ma leen joxoñal nii ayatin kawtef joo xamante ne ña ko war a xelaat mooy li qawmin xeet yoo xamante ne yasmaun dañuy nangoo dégg aaya alquran ak la leen bi tegtal sallallahu alayhi wa sallam ba tax na yonentu boobu de moo ñu ne nelaw boobu yàlla jox ñu mu doon kado goo xamante ne dañ koy dund dañ koy jëfandikoo ah mu ne kon yow jullit bi pàcc bi nga ci am mooy gannaaw bu la yàlla yenkeewal ba nga nelaw bi yeew la nga war a wax mooy alhamdulillahi mboolem xëytu cante yi ñeel nañu yàlla alladi ndax mooy buur bi nga xamante ne axyaana moo ma dundal baada ma amatana gannaaw bu mu dogalee sama jëmm ji dee bu ndaw keroog ba ma jógee ko ci kaw suuf si wa ilayhi nushur du ma dellu ci kenn du ma dellu fenn fu dul fa moom yàlla tabaraka wa taala ba tax na yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam lii la jàngale ci njàngale yu mataleem yamu àndil xeet wi yan ñu ko yàlla fayal sallallahu alayhi wa bi léegi moom yonent boobu de moo ñu baaxee jamono ji nga xamante ne ca la ñu nekk nii mu war laa xamal yow jullit bi saison bu jaar jàll am na weneen saison buy ñëw taxawaat jamono bu nekk yow jullit bi sa dund bi xamal ne ah, jamono jooju dafa am li nga ci war a fàggu mu doon yiw ba lay xaar keroog sa tiraayu bàmmeel nga war a épargner sa bopp la nga xamante ne kenn keneen ku dul yow. képp ku dut yow du la ko mën a épargnal kon na ko waajalal sa bopp ba tax na yonentu boobu ci jamono ju ñu nekk nii mu nekk at bu bees bu ñu nekk nii mu doon atum jullit ñi ci weer bu njëkk te mooy weeru muharram yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu gàddaayee jóge ko Makka dem Madinatul Munawwara ak suñu jonn yàlla ji di tey mooy mille quatre cent quarante sixième année kon jullit bi war naa war a mën a waajalal boppam ngir mu génnee azakay alalam ba tax na bu ñu demee xool xadiisu abdullah ibn umar radiallahu anhu yann ko buri yàlla gërëm nee na anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal buniya al islaamu ala xamsin shahaadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abdullah ibn umar abdullahi di doomu umar nee na naka suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ne buniyal islaam dañoo tabax islaam ala xamsin ci juróomi ponk bu ci jiitu mooy shahaadati an laa ilaha illa allah yow jullit bi da nga war a seede ne amul benn buur difi fi yàlla kulut yàlla yàlla dong fi nekk di buur moom la ñu war a jaam waaw wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nga seede ne muhammad di jaamu bi yàlla la waaye yonentu bi yàlla la loolu di benn ñaareel bi ponk bi mooy wa iqaami salaati da nga war a taxawal julli yow jullit bi saa yow déggee hayya ala salaah hayya ala al falaah allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah da nga war a waajalal sa bopp séq ab jéego dem julli waxtu woowu sa giiri dund mooy wa iqaami salaa nga war a taxawal julli ndax yonent bi nee na awalu maa yuxaasabu bihi al abdu yowma alqiyaama assalaa sallallahu alayhi wa moo ñu xamal nañu lu jiitu keroog bés pénc la ñuy njëkk a àtte ci jëfu doomu aadama bi mooy julli sallallahu alayhi wasallam nee na julli jooju di bu di yiw na yéwén na jekk na duñu xool yeneen jëf yi dinañu xam ne ah yeneen jëf yooyu war nañoo war amal ba ah waaye julli bi di bu fekkee ne am na lu ci tàq ci xeetu ñaawteef wala xeetu matadi walla xeetu ya nga xamante ne bokku ci kon xamal ne yeneen jëf dootuñu ko xool ndegem julli bi nga rafetalut julli bi moo jekkul dañ naan yeneen jëf mënuñoo jekk waaye julli bi bu jekkee duñu xool yeneen jëf yi dañ naan yeneen jëf ya si des léppay jekk waaw ñetteelu ponku islaam mooy wa ita zaka nga joxe azaka ñeenteel bi mooy wa xajjul bayt nga dem aji màkka juróomeelu ponk bi mooy wa soomu ramadan tey nag ñetteelu ponk bi ca la bëgg a taxawandek yéen la suñu borom bi tabaraka wa taala baaxe jullit bi walla yow mi mu may la nga xamante ni mooy alal bu ne gaññ ngay yore ko di ko jëfandikoo waaye yàlla nee na nang si génnee azak mbokk yi ñu ngi ànd ak ci waxtaanu fajar fii ci réew mi fm 97.5 nañ leen bokk déglu aaya alquran ba yàlla suñu borom tabaraka wa taala di baaxe yenentu bi ci suñu téere bu mag bi waaye mbooleem jullit am ci pàcc joo xamante ne war nga ci war a mën a natt sa bopp rawatina yow mi yàlla wërsëgal lu ne gàññ nga yore ko ci alal ci gànjar ci urus ci la nga xamante ne mooy ngalam waaye na nga xelaat ne yàlla daf ne la na nga génnee azak ci loolu mu la wërsëgal muy xeetu alal ya ñu tudd nii waaye képp ku ko génnee am na la la yàlla dikk waaye képp ku ko am yore ko man ko bañ kaa génnee am na la la yàlla dig joxe azakay alal ña ko taxawee am na la leen yàlla dig ña ko yore bañ kaa joxe am na la leen yàlla xupp mu doon xuppaate boo xamante ne du jaas waaw du jaas de yàlla la yàlla nottoo mooy ñu di leen ko fàttali di ko waxtaan ak mbokk yi kon yal nañu yàlla buur bi tabaaraka wa taala may dégg ak topp ci aaya alquran ya ñuy waaj ni ak ay ahadisu nabawiya ya ñu yëkkati ni ci xadisu abdullahi bun umar radiyallahu an mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yenn ak seen njaboot buur yàlla tabaaraka wa taala aaya bañu bëgg a yëkkati ni moo ngi nii di xupp di avertir di alerte ñoo xamante ne dañoo yore alal ya yàlla bëgg joxoñ fii ci aaya bi mu ne walladina gaa yi nga xamante ne yaknisuuna dahaba wal fiddata dañuy denc di rënk seen alali moo xam urus la moo xam or la waaw xëytu gànjar ak xànjar ya ñuy rënk mu doon xeetu alal zahab muy urus wal fidda muy xaalis ñi nga xamante ne dañ koy denc waaw moo xam ngalam la moo xam wurusu ngalam la moo xam gànjaru xaalis la moo xam compte bancaire bu ne duun la waaw lu bari ak lu munti doon yàlla nee na gaa ya nga xamante ne dañuy denc seen alal yooyu ñu di ko rënk ñu bañ kaa dépensoo fii sabilillah moo tax yàlla ne wala yunfiquunaha duñ ko nangoo dépense o fii sabilillahi ci ci yoonu yàlla wala yunfiquunaha duñ ko nangoo dépense o fii sabilillahi ngir di sarax jëmale ko ci ñañu tane wala yunfiquunaha duñ ko nangoo dépense o fii sabilillah ci azakay alal bi yàlla wax ne nañu génnee seen azakay alal ñamel melokaan wi di denc seni alal bañ koo dépensoo fa yàlla sopp bañ kaa dépensoo fa yàlla gërëm ñu bañ a génnee azakay alal jooju buur yàlla ne yonent bi ne fa bassiruhum nang leen bégal waaw bi adaabin mbugal joo xamante ne aliim mbugal bu tar la fa bashiruhum nang leen bégal bi adaabin punition boo xamante ne aliim punition bu métti la punition bi nag ni muy demee ak nañ koy defee moom la buur yàlla tabaraka wa bëgg joxoñ aaya ba ci tegu ni mu ne punition bi ni muy demee mbugal bi ni muy mel mooy yawma yuxma alayha keroog bés penc mooy bés bi nga xamante ne dañ leen di xamb fii naari jahannam ci safaru su jahannam seen alal yooyu ñuy rënk seen or ak seen wurusu ngalam yooyu ak seen compte bancaire yooyu ñuy rënk ñu di ko denc di ko denc ci dencukaay joo xamante ne duñ ko nangoo génnee saraxe si duñ ci nangoo génnee def ci li yàlla sopp duñ ci nangoo joxe azak yàlla ne yonentu bi ne nanga bégal ñooñu punition bu metti bi leen di xaar keroog bés pénc ndax keroog bés penc mooy bés bi nga xamante ne dañuy jël loolu ñuy denc ci seen alal yi ñu bañ see saraxe bañ see dépensoo ca yàlla sopp bañ see génnee azak buur yàlla nee na ñooñu de dañ leen di xamb loolu ñu denc ñu jël beneen wàll ci seen alal yooyu ñu daldi ko def matériel bu toll ni fer rapace walla ay xeej ak ay jaasi yoo xamante ne dañ koy tàngal ci safara si ba mu xonq cur fatquwaa biha jibaahuhum bur yàlla nee na ñu jël seen alal yooyu def ko fer rapaase bu tàng jir ñu di ko paase seen xarkanam yi ak seen lex yi wa zuhurahum wa junubuhum wa zuhurahum ñu jël seen alal yooyu ñuy rënk bañ koo dépensoo fi sabilillah bañ see dimbali ku ñu tane bañ see génnee azak buur yàlla nee na keroog bés penc dañuy jël seen alal yooyu soppi ko mu doon ay jaasi ak ay xeej ak ay fer repassé ñu di ko paase seen xar kanam yi ñu di ko paase seen wet yi ak seen diggi ginnaaw yi mbugal gi daldi di toll foo xamante ne day metti lool ñu naan waaw yàlla mbugal bi lu ko waral yàlla daal leen xamal ne haada ma li anfusikum lii ngeen nekkee nii mbugal ju métti bi ngeen di subiir nii mbugal ju metti bi dal seen kaw nii te ngeen di ko laaj loolu mooy la ngeen doon denc seen alal yi ne leen nañ na ngeen ci génne azak ngeen lanka bi tëdd si naaj wa ñu ne leen na ngeen ci dimbali way néew ju doole ji ngeen lànk bi tëdd ci naaj wa ñu ne na ngeen ci jokk mbokk ngeen lank bi tëdd ci naaj wa waaye ngeen jël seen alali rénk ko denc ko du ngeen ci jokk mbokk du ngeen ci dimbali ki ngeen tane du ngeen ci génnee azak du ngeen ko tàbbil fii ma yuhibbuhu llahu wa yarda du ngeen ko tàbbil fépp fu yàlla ne sopp naa ko fi mooy lama ma gërëm déet ngeen def ci seen alal ngeen jël seen alali di ko puugarewu di ko bànneexoo di ko nootee nit ñi di koromp nit ñi ngir ñu daaneel nit ñi ak li ni mel loolu ngeen nekkee seen alal yooyu de looloo tax te yàlla soppi seen alal yi mu doon matériel wuy jaral bekku ñu di leen ko mbugalee kon fa duuxu na ngeen nekk di mos fa duuxu na ngeen nekk di sentir maa la nga xamante ne kuntum nekkoon ngeen teknisuun ngeen di ko denc mbokk yi bu ñu dégloo aaya bi xel dinañ gis ne ndekete denc alal bañ kaa tàbbil fii maa yuhibbuhu llahu wa yarda jaru ko denc sa alal bañ koo dugal fépp fu ne la ne fii la yàlla sopp mu doon fu mu gërëm jaru de jarul ngay denc sa alal bañ koo tàbbil fa yàlla sopp waaw jaru ko ndax ëllëg bés pénc dañuy jël alal bi ñu soppi ko mu doon matériel ba xamante ne dañ la koy lore dañ la koy mbugal est-ce que jar na ko jaru ko kon képp ku di borom alal na nga jël sa alal nga daldi ko jëfandikoo fépp fu ñu ne la ne fii la yàlla sopp mu doon fu mu gërëm loolu mooy lalay njëriñ ndax loolu dina doon sa laltaay ba ngay jiitalal sa bopp keroog sa tiraayu bàmmeel ngay commencé di dund bànneex boobee xéewal woowu de nga doon def fii ci àddina keroog sa tiraayu bàmmeel la ñuy commencé ñu di la ko dottil boo dekkee keroog bés pénc yàlla boole la ci ñi nga xamante ne ñooñu ñooy ñi nga xamante ne yàlla daf leen ne ulaika humul muflihun ñooñu ñooy kuréel way texe ñi kuréelu way texe ñi nag bu la ci yàlla boole ca ngay xam njëriñu topp yàlla ca ngay xam njëriñ ba nekk topp ndigalu yàlla sori ay tereem waaye nga teg ko comme na ko yonent bi jàngalee nga di ko jëfee comme na ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi waaw gaa yi nga xamante ni dañuy jël seen alal ñu di ko rënk muy urusu ngalam walla xaalis gànjar walla xànjar walla li nga xamante ni mooy laka niro suñu jamono yi tey nga yore compte bancaire bu duun boo xamante ne amuloo dara loo ci xelaat lu dut muy yokku rek génne si azak nga ne de da koy wàññi saraxe si nga ne da koy wàññi te am na la seytaane di installé ci xolu ñenn ci borom alal yi dalay xeeploo faqiir yi dalay xeeploo njabootu yàlla ya tudd faqiir ak miskiin waaw ah, fuqaraaw yi dalan di xeebloo doo nangoo toog ak ñoom doo nangoo jaxasoog ñoom danga leen di gedd danga leen di xeeb di leen doyadal waaw ko ci xool sa nga di ko xool xoolinu xeebaate waaw koy jox loxo sa nga di ko jox te moo ne faqiir yooyu tamit dañ lay naw dañ lay respect dañ lay jox gëdd jox la cër waaye seytaane li muy installé ci sa xol yow mooy ñii doo seen maas doo seen moroom waaw dërëm ak dërëm ay ànd ba tax na xelaatuloo ne ñii nañu mel nii yàlla moo leen ko natoo man la ma nekk nii yàlla moo ma ko wërsëgal du suma ngóora ba tax na doo leen may doo leen dimbali doo leen xettali sarax ba war a dox sa diggante ak ñoom doo ko def azaka ba leen war a jox faalewuloo leen ci loolee dundoo ko sax ba di ko xelaat yàlla nee na ah ah kon yow de médité nga ñu béggal la mbugal ju toll ni moo lay xaar bés pénc mbugal jooju mooy lan yow ma mooy bés bi nga xamante ne yuxuma alayha dañ leen di xamba dañ leen di xamba fii naaru jahannam ci safara su jahannam fa tukuwaa biha ñu daldi paase seen jibaahuhum seen xarkanam yi wa junubuhum ak seen weti wa zuhuruhum ak seen diggi ginnaaw yi mbokk yi ñu gis ne ndekete mbugal bi nu muy demee dañuy soppi alal jooju gaay di rënk bañ koo jëfandikoo fa yàlla sopp dañ kaa jël sopp ko mu doon safara su jahannama soppi ko mu doon safara su jahannama ñu di leen ko xambee ci safara si ñu jil lenn ci alal yooyu soppi ko mu doon matériel ba ñu naan fer repassé wala ay xeej ak ay jaas yu ñëw ñu daldi ko paase seen xar kanam ak seen digg ginnaaw yi waaw ñu jël di leen ñaas mbugal ju métti lool ñu naan yàlla lii nu mu demee ni mbugal ji mooy la waral li buur yàlla ne leen haada ma lii ngeen nekkee nii di ko dund mooy la ngeen doon dencal seen bopp waaw kon tey ji fa zuuqu na ngeen ko nekkee na ngeen ko ñam na ngeen ko dund waaw maa kuntum la nga nekkoon tak ni suun ngeen di ko denc kon denc sa alal boo xamante ne mbokk bi bu ñu xoolee ki doon gane si àddina amul dara lu mu àndiwaale teraanga lépp la nga yore bépp teraanga bala ba ba nga yor fii ci kaw suuf si dalaa dab rek waaw ah, kon seytaane bu mu mës a am yoon ci yow ba tax nga jël sa alal jooju sopp ko cofeel joo xamante ne doo mën a am jot wala doo am yéene pour génnee ko jox ko faqiir yi nga xamante ne ñooy miskiinu yàlla yi mbokk yi waxtaan bi jeexut dañoo yëg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ndax ña war a tas xibaar ñoo ngi ni taxaw ñu war leen jébbal béréb bi mi daal di joxe xibaar yi ci nasaraan ñu ñaan yàlla buur bi tabaraka wa taala an yajalana min allazina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ahsana allahumma ya rabbi aati nufuusana taqwaha wa anta mawlaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha allahumma aminna fi awtaanina waslih allahumma aimmatana wa wulaata umurina waslih aimmatana wa wulaata umuurina yaa rabbi ixfada bilaadana min alfitan maa dahara minha wa maa batan amin ya rabbal alamin baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani aladim wa nafacani allahu wa iyaakum bima fihi min alayaati wa dikri alhakim aqulu maa tasmacuun wa astagfirullaha lii wa lakum min kulli dambin fastagfiruh innahu huwa algafuuru rahim